à tout le monde ñu ngi leen baax di leen euh, ziar di am mbégte janoog yéen ci seen chaîne leader yi nga xamante ni rek euh, moom la ñu fas yéene waxtaanee tey euh, Luciano Genovesio nekk un français d'origine italien moom mi nga xamante ni rek en même temps coordonnateur Omart Sénégal en France nekk un artiste plasticien moom nag ay œuvre d'art ci lay yëngu tey nag ñu fekk fi nga xamante ni rek moom mooy këram fas yéene waxtaan ak moom ci œuvre yi nga xamante ni rek bobaak léegi mu ngi koy def ñu leen di xamal mu ngi am le 26 novembre 2023 fële ca Dakar euh, restaurant Le Mistral Dakar euh, rue Victor Hugo fa la war defee li nga xamante ni rek moom mooy exposition yooyu les œuvres tey na waxtaan bi dina yaatu waaye rek dañ koy euh, nuyu ba pare bàyyi ko mu introduire wax li nga xamante ni rek loolu la indil sénégalais yi bonjour monsieur Dieynaba bonjour très bien merci et vous. Ça va, Alhamdulillah. On va vous laisser euh, exprimer ou bien parler aux Sénégalais. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous euh, voulez faire le eh bien, 26 novembre Cette euh, porte sur un thème qui euh, donc euh, Dubaï. en même temps, j'ai ajouté quelques œuvres un peu plus anciennes les recherches que sur, le, sur la peinture. Parce que j'ai travaillé euh, plus de 55 ans au ministère de la Culture pour 4700 euh, contrats de restauration des œuvres d'art de, du patrimoine. Donc euh, ma formation est extrêmement classique et c'est pour, pourquoi euh, le, un peintre de mon âge, c'est un, un chercheur. C'est un chercheur euh, avec euh, un un équipement classique euh, pour euh, faire perdurer les œuvres le plus longtemps possible. Donc cette, œuvre, cette exposition à, à rue Victor Hugo au Mistral, ça, ça a pour but de, de, montrer un peu un échantillon de mon savoir-faire, mais c'est un petit échantillon parce que avec toute ma carrière, celle-là, j'arrive à un grand âge. <laughs> euh, donc je peux montrer maintenant euh, en toute simplicité euh, ce, qui sort, ce qui sort de mon cœur. Et il y en aura d'autres. C'est la première exposition que je fais à Dakar, à part le, le Coris d'or que j'avais fait en 2016. Euh, mais sinon, euh, ce qui m'a interpellé, c'est la qualité des, des artistes euh, sénégalais. J'en connais quelques-uns et c'est vraiment porteur, je trouve. Ce sont des jeunes Et donc on a, on a un peu l'espoir de, aussi de travailler avec le, avec le, le bureau euh, au Mart, oui, bien sûr, qui va nous, nous aider pour, pour porter ces, ces jeunes euh, à, à, leur euh, inculquer des techniques qui vont pérennes, qui vont durer longtemps. Et j'espère que ça, ça, ça, va fonctionner. Le mot n'est pas, euh, comment dire, euh, adéquat. rien n'est facile. Et en même temps, si ça sort du cœur, il y a une certaine facilité, oui. Donc, donc il faut, il faut euh, le bagage de la, de la technique nous sert, c'est un outil pour, pour exprimer nos sentiments. Ce n'est qu'un outil. Il y a un grand peintre qui s'appelle Picasso qui a, qui a qui, a, qui, était un chercheur aussi. Il a, il a essayé tout. Il a regardé les, les antiquités égyptiennes, il a, il a, regardé les antiquités africaines. Et ça lui a servi à, à exprimer ce qu'il voulait. Donc euh, ici, le Sénégal, c'est très inspirant pour travailler. C'est un pays, il y a une lumière spéciale. Et ça, je compte bien euh, la faire valoir, la, la faire euh, exploser dans, dans, mes prochaines expo expositions. Si vous me parlez de la, de la fresque que j'ai faite à la gare de Lyon, il m'a fallu deux ans. Et pour un... Oui, mais c'est un tableau qui fait de long. Donc il y a beaucoup de surface. Ça dépend pas seulement de la surface, ça dépend euh, de la motivation, de, ça dépend de, de l'inspiration. On peut très bien faire un tableau généralement, moi je mets parce que euh, euh, quand on réussit une chose Donc euh, on laisse tomber. Le lendemain, quand on regarde, on dit non, ça va pas du tout. Donc il faut tout recommencer. Et donc euh, le, le temps, le temps n'existe pas, on peut dire. Hein. C est, c est, ça compte pas le temps. Ça n'a pas d'importance en fait. L'important c'est que le sentiment il y soit et que ça, ça ne vieillisse pas, autant dans l'idée du, du, tableau que, que dans la, la matière. C'est pour ça que les grands artistes qu'on voit dans les musées, on a l'impression que les tableaux ont été faits, hier. les, primitifs italiens, où le, on voit des tableaux qui sont frais, qui, qui viennent d'être faits. En fait, ils ont 500 ans. Donc euh, c'est ça le but, c'est de faire comprendre à, au public, de, de, faire aimer les choses pour qu'on pour qu puisse les, les porter, dans, les tirer les porter dans, dans le temps. C'est très important de, de la... J'ai aperçu les deux fresques de Sri Touba. Oui. Euh, on dirait que c'est plus expressif par rapport aux archives françaises, parce que là, il y a une vérité. Mais c'est le but recherché, c'est-à-dire une, une, vieille photo euh, oui. ne, ne, montre pas, elle, elle, montre un instant donné, c'est oui. tout. Tandis qu'un tableau, c'est tout à fait différent, ça, ça montre un sentiment. Et, et le, le, le, travail du peintre, c'est de, de, chercher la vérité dans le,

Voilà. Donc euh, vous venez et, et faites-vous plaisir. Alors les prix, ça va de 1 million à 11. Le, le, le, la, la, pièce maîtresse, elle est, sur, elle est ici. C'est un grand tableau, oui, un peu comme l'écran là. Euh, c'est 11 millions. Ce n'est pas, pas les prix euh, européens parce que euh, je ne veux pas non plus écraser les, les, les personnes, mais ce sont des prix corrects. Mm -hmm. Et les, il ne faut pas oublier que les, la, la, peinture, c'est aussi un investissement. C'est que il ne faut pas avoir peur de, de, d'investir dans, dans, la peinture. Et ça fait grandir les artistes. Ça, il faut les aider aussi à ça. Et c'est mieux qu'à acheter un terrain, par exemple, ou construire une maison. Parce qu'on ne sait jamais si c'est le bon endroit. C'est-à-dire que si on choisit bien la peinture, vous faites une bonne affaire. Vous, vous, ça, ça augmente tous les ans. la côte elle monte tout le temps. Hmm. Euh, jërëjëf Bintu euh, maa ngi nuyu presse yëpp euh, presse bi fi yëpp di wax ni aussi mbégte la ñëw fii ci Njaxiraat cité Doudou Bass pour à la rencontre dajeeg Luciano moom mi nga xam ne Mohamed la tudd aussi di artiste français d'origine itali italienne te tamit di nekk artiste boo xam ne métissage la parce que tamit tey Sénégal la nekk fii la am këram. Euh, maanaam am fi muséum def fi ay œuvre am te œuvre bu si nekk amul prix œuvre amul prix mais quand même comme ni mu ko waxee tey dafa fas yéene def exposition le le 26 novembre donc vernissage bi le 13 décembre donc euh, mu fas yéene ci ci exposition boobu wane li mu liggéey mais aussi wan ko public bi pour ñi nga xam ne ay connaisseurs lañu ñu mun a acquérir tableau yi ak œuvre yi mu liggéey mais dafa am wax ju am solo bu mu wax léegi nee na œuvre d'art moom œuvre dina jël ñaari at pour liggéey benn œuvre benn œuvre dina am ñaari at pour liggéey benn tableau wala masque wala lenn mais aussi euh, dafa wax ne aussi bu ñu investir nee na balaa ngaa jënd ay terrain naa investir dans le batiment di jënd ay terrain ay kër nee na nga investir si art moo ëpp doole si ci tableau yi ci yooyu parce que yooyu lu at di gën a dem valeur bi di gën a cher ndax gis nañu ay tableau Picasso yoo xam ne ay milliards lay jar léegi te tey doo gis benn bâtiment rek boo xam ne dañ naan la amul njëg mais am na njëg mais œuvre d'art tey euh, euh, Luciano fii ak fukki at wala téeméeri at dañ naan ne œuvre d'art Luciano bi ñu tableau bi wala masque bi wala lii mais italien wala français yi nga xam ne foofu la sosoo sax duñu ko mën a jënd état bi sax du ko mën a jënd du am du prime donc nee na nañu investir ci art nañu investir ci culture donc tool tey looloo tax ñu ñëw fii pour en ma qualité de président de l'observatoire de la musique et des arts Sénégal gën ko dooleel gën ko may doole aussi jàppale ko parce que Omar Ty aussi loolu muy mission jàppale ko euh, aussi remercier Mass Thioune mi nga xam ne tey mooy manager am moom moo ko yore moom moo koy épaulé euh, remercier aussi Ablaye Fall nga xam ne c'est un acteur éminent acteur culturel de premier plan donc tey ñooñu ñoo fi teew mais di wax ne aussi Bara joxaane qui critique d'art moom aussi dafa jara remercier parce que c'est un de l'ombre mooy ñi nga xam tey ñu ngi liggéeyal culture Sénégal sans pour autant attendre rien en contre contrepartie donc euh, te état tey dafa war a bàyyi xel si ñu mel noonu ndax euh, lii njëriñu réew mi la ku mel ni maanaam ñëw investir Sénégal fii si Ndiakhirat si du Doudou Bass def fi ay œuvre d'art yoo xam ne amul prix mun naa la wax ne fii tey fi ñu nekk nii bërëb bi dafa mel ni pétrole moo fii bal la pétrole sax day jeex waaye lii culture bi du jeex euvre d'art yi du jeex donc loolu lañ doon wax di invité sénégalais yëpp au Mistral ah. oui euh, Victor Hugo au Mistral. bon mais xam nga man dama am chance boo xam ne côtoyé ñu mel ni Jo Wakam bi may xale mais tey dama gis ne tey Jo Wakam li mu am ci addunaam maanaam tey bu doon def directeur de société la wala mu yore usine wala mu yore entreprise wala mu nekk ministre du ko am donc tey culture lu mu mën a may man nee naa. tey bu ñu buggoon arrêté ga yi di jël gaal yi di dem nañ leen jàngal métier de la culture tey formation bi ku mel ni euh, Luciano tey bu ñu ko joxoon benn loo jeunesse jeune mu former leen mais dans d'ici cinquante ans dix ans mais jeunes yooyu ay milliardaires la ñu nekk te soxla ñu du ñu soxla état dara mais tey état boo xoolee politique culturelle bi ñu am ñun Sénégal politique culturelle la boo xam ne euh, fulaalul faydaalul culture bien vrai que le président de la République, il a mis beaucoup de moyens, mais pour nous traduire en acte la vision de, de, de Macky Sall, qui est un président exceptionnel, comme l'Ima Yornan, un tchapacholi, la politique du Sénégal, mais, mais, mais là, ko traduire en acte. Toujours, gars, ils lambato, ils des, des, des ministres de la culture de l'instant. Alors que nous, on a besoin un ministre de la culture dans la durabilité, ne day les mécanismes porteur de euh, de d'emploi et créateur de revenus mais alors que ñun amuñu ko donc c'est pour cela que question bi nga posé dafa baax Bintu c'est-à-dire que nañu fexee ba nga xam ne jeunesse bi nañ leen xirtal former leen créer jël artistes yi nga xam ne dañoo ràññeeku artistes plasticiens yi nga xam ne dañoo ràññeeku seen domaine ñu dénk leen xale yi ñu former leen. xam nga États-Unis la ñuy def États-Unis chaque année dañuy ubbi Maison Blanche dañ koy ubbi parce que Maison Blanche musée li fa nekk américain ko moom mais tey ñun ay musée des civilisations noires euh, grand théâtre palais de la république nga xam ne sunu patrimoine la bokk mais dañ ko tëjël dañ ko tëj dañ ko tëjal citoyens yi ko gis waxuma la sax artistes yi te tey dañ ko waroon ubbil artistes yi Euh, musée musée bi ngay wax ni musée de civilisations dañ ko war a dafa war a accessible mais tey dañ lay laaj ay millions pour nga exposer fa un boo xam ne mu ngi soog door boo ko laajee ay millions man je pense que sont autant de question yoo xam ne ñun dañ ci war a appesantir donc di wax ne aussi euh, yobbal bu mu xam ne daf ko yóbbande si Ablaye le président daaw Daouda Diallo président du conseil économique social et environnemental dont je suis le conseiller spécial maanaam def na Ablaye Daouda Diallo invité am d'honneur te loolu lu rëy la waaw parce que kii artiste mondial la mondialement reconnu kii bu jëlee Ablaye daaw Diallo c' est parce que am na fu mu teg le président Macky Sall donc invité na ko di ñaan nag daaw Daouda Diallo ñëw mais surtout jënd si tableau yi euh, pour rien que pour wane l' la France l' Italie que tey ñun suñu état dañuy soucier wu ci culture dañoo bëgg culture donc daal di remercier ñëpp quoi di remercier vraiment. presse bi di aussi sama soxna mi àndal Laay Maxtaar euh, di leen jaajëfal. Effectivement, les musées, comme disait monsieur, euh, rendre les musées accessibles aux jeunes surtout, et leur faire comprendre que l'art, c'est un moteur qui nous, porte, qui nous, augmenter. Euh, donc c'est, c'est Y a rien, si vous regardez tous les objets, ce trépied, il a été dessiné. par un artiste. Ce canapé a été dessiné, cette poutre a été dessinée, la vis qui est là a été dessinée aussi. Tout est important dans, dans le, la création. Et c'est ça qui aide à, à faire qu'une société euh, soit épanouie.